coronavirus coronavirus koy kanko sumutu kanumanje bajuta ñil bajuta nine bajuta nifam bajuta nine bajuta stek eh, kanka ko sumutu kanumanje bukana tukugore badni baji ke bari sumu yene tere gudi ko sumutu kati coronavirus tate ten tembe ñaji baji eh, pikiri ñen ko nem vacciner yel manje annonce tan awurna pour mana janga yo bangol na tanka fanga fayde ko sumutu kati covid 19 que le vaccin contre le coronavirus a été créé pour dépoper THR race noire. Il n'y a aucune preuve scientifique que le vaccin contre le coronavirus a été créé pour réduire la race noire, en particulier les Africains. En fait, cela vous aide à vous protéger du coronavirus. Alors, faites-vous vacciner, vous, votre famille et la société. Denmark Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Ghana. We have inpatient service and outpatient services. Denmark admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment three times a day for five days from Mondays to Friday and on Fridays they go to their families to spend time with them to have family. Outpatients come on regular appointments probably twice or three times in a week for treatment we treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Denmark Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. Assalamualaikum mbokk yi ñuy seetaan asalaamaaleykum aduna wërngël képp ñu di leen nuyu di jox ñëpp seen wàccuwaay di leen ne ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam ci ngoon gi ñu nekk nag fi nga xam ne moo di ci biir kër gi Gambian Talents TV ah, ñu amal fi nag tey nag gan gu am solo nag lañ leen fi indi nag gan goo xam ne nama ngeen ko yàkkamti ngeen koo gis bu ngeen déggee ay mbiram yéen ñëpp sawar ci mu di ki nga xamante ne moo di Wadd Pac daal di ci ànd ki nga xamante ne nag moo di doomi ndeyam Big Faa ju ko gën xam nag ci ki nga xam ne moo di borom bëri bagage ñoom nag ñu fas yéene leen amal nag bés nag bu am solo boo xamante ne ñu ngi ko nar a def 20 euh, bii di ñëw fële ci nga xam ne moo di stadium bi ñu nar a am nag li nga xam ne moo di concert di ci woo nag Gambie yëpp nag bu ko defee nag ma daal di jox ki nga xam ne moo di One Pac mu wax leen bés bi naka la nar a tëddee ak ñoom lan lañ ci préparé bu ko defee su paree rek ñu daal di jox kàddu gi tam ki nga xam ne moo di Big Faa mu tam sànni ci. waaw jërë ngeen jëf salaamaaleykum man greetings to every Gambian bii daal mooy borom bagage yi bii bési la ak borom bagaas te ñun nag si bagage yi dañ booga ma jox ko borom bagaas bi mu uñi oma gi mun a gis bagage yi waaw waaw ah, kon xaaral ñu jox ki nga xam ne moo di Big Faa mu daal di wax li xalaat ci bés bi yeah asalaamaaleykum maa ngi nuyu uh, mbokk yi seetaan yëpp fu nekk sa fa munti nekk rek dina nuyu you know wanna tamit you know gars yi big fala la borom very far up. we in the building we outside yo right now ñun uh, suñ tànka comme like tey lu ñu fi taxal like mooy suñ event bu mag bu ñoo waajal muy november 28 my launch my album be bi ñu fulaal suñu yëf ina mean like ñëw Gambian Talents tey pour waxtaan si ak mbokka yi yëpp and aduna bi yëpp ñuy seetaan Gambian Talents yëpp ak suñu fans yi di leen yëgal di leen yëgal come there I feel si like jot na ba pare comme Saturday la buy ñëw I mean Saturday November 28 dina nekk Independence Stadium dina nekk show dina nekk concert dina nekk mega event you know it's going to be a history because guy Gambia you dañ pare pour feesal start November yet because dañoo fulaal suñu from you know that's what it is you know limo moo nekkoon tey suñu tànka tey fii di Gambian talent, you know waa kon ñu daal di jox rek ki nga xam ne moo di One pack moom tam mu sànni ci li nga xam ne moo You kàddoom si yoon ñun dañ war showcase am loo xam ne mooy unity suñu diggante am mbugeel suñu diggante yëgoo suñu diggante déggoo suñu diggante xam nga jàppale wante suñu diggante yëggante suñu bés enu ko ni suñu bos la su xëjee suñu diggante rek industrie bi booy ñun ñëpp a see yaatu parce que bu ndaw la suñ industrie bi is not big su amee hard feeling rek du dem waaye foog naa bési biig fa ma enu ko suma bés keneen enu suma bés ni bésaam keneen enu bési kiku tamit ni bésaam bro this is a smooth lane you get me so all Gambia ak gan ñum fee fekka ñum nekk ñu nekk si biti yëpp xam nga li ma laa wax ne twenty years lañ wax xam nga that's the first time ñu war a fulal suñ yëf officially fulal suñ yëf lañ wax nii so bii ku ko mboote nag ñaan naa la ngir yàlla bilaahi xanaa nga dem seetaan tele, xam nga nga repeat waaye bés boobu cofeel geeg safaay geeg ambiance bi mooy dara am doo ko mun a dabaat keroog nag xaw ma ndax ni maa ñëwee sa xaw ma ni maa ñëwee ndax béjin laay poose xaw ma xaw ma bro ah waaw man sax duma dee mën a prédict suma booba ba keroog ca bés ba waaye xam naa leen ne doo dañ ko réccu billahi walaay talaay mama attaque pa Ousmane Gambian Talents TV jàppale ngeen ñu torop xam nga ma lay wax ni ñu ngi fi nag seen gaaje su desee si ñun te la leen ngeen nelew du musa am Gambia yëpp nag ngeen giina support yo own xam nga ma ñun bëgguñoo dem baakuwee mënuñ ko sax xamuñ fa sax yaa ngi understand fii lañ am tekki fii lañ wax yaa ngi understand so every artist nag ñu wax la ko waxuñ la ko xamal ne si xol su fekkee ne xol bu setang fa ak xol bu yaata event bi seen event la yéen ñëpp ku nekk nga def sa personal video ina min wone Gambia ak Gambian ak àdduna bi yëpp for the first time we Gambians, we don't, we Gambian artists in the society, in this industry, duñ mun a bàyyante in a mean ku the la ñooy buuraale yow ton by ton lañ wax one by one you get me style that's the thing You what I mean this easy rek easy life is lovely fools make it ugly man one pack the maa Wow, how man that ma ndax wrapping paper Oh, o my man boy xaw ma waaw ba léegi rek thing that day sa show la lu la nee ngay def because this is a family thing like soo seetee one pack attack chronico Wydee you know what mean big fa you know yëpp is family you know mean you know so ñun ku xewle dañoo joke, jàppasi like sumando yi like Uche Tifli even Hussein Tadangam. That they show tey show am la na miin tey mooy album launching mom time at like si palace bi foofu noonu I mean, lo, this is love Come, limo eta come industry be dunda industry be look ko dundal du love like when we support each other industry na far dunda because they doole benn need munuta def lu def. You know what I mean? tey man dama foog ne ñun ñëpp suñ jàppee ñu jàppale ki ñu jógee si kii jàppale kii after problème du am ñëpp dañoo nekk si jaama te ku nekk da am loo am si jaama sala naa mi waa kon ba léegi rek mbokk ñuy seetaan kooku nga xamante ne moo di Big Faa borom bëri bagage li mu wax noonu rek mooy ne rek mbooloo mooy doole bu ko defee ne ñu daal di laajte nag Big Faa kii nga xam ne moo di One nag naka ngay waajalee bés boobu lem bés bi daf ma confuse instant yi ni may taxawee ni may waxee nii xaw ma xam naa ne dinaa génn fu fu tar waaye xaw ma sax ndig sama ay bunto bari yeneen caabi sax dama koy mélangé du ma leen di xàmmee waaye bunti la vingt bii nii bunti eight bii nii caabi bi laay ut benn fu may génnee nag xamaanguma ko. dañ koy daaj sa suñ ko daajee nag mooy garaaw feeñu gi te ëllëg nag xaay bi leen leen jox ëllëg mooy road show bi kaay leen xool road show bu musuta am Gambia ngeen koy ngeen a gis may play road show bi te dama koy play hundred percent maa leen dikk naa leen jox sixty five songs yëpp hit songs on fulal suñ yëf road show Yang you understand? Meeting point before the Safa. Start three o'clock. Si Bichik. Boom. Boy. Thank you very much. Ngeen game, capak I. I ay ay déguisement ay kudal ay ay ah boy far, boy ah. non ñu dem rek wax na wax. Ah, xuusal xuusal. yaa ngi ci biir. non faa foog Fatim ñëw de waaw Fatim mu ngi ñëw ëllëg foog mu ñëw ëllëg mu mu gaay ndey bunta bi mu leer hmm? mooy jiite de waaw métti geng gi nag bu suñu raka ngi ngi leen di geng geng xam nga ma son suma mut ngeen laka raxe mut ngeen raka mut ngeen ko sëkk maa bi jëlee prince ne ko prince be down geng bi waaw fulal suñ yëf le na kuy ñëw foofu nag ah nga ñëw ak xol bu set nga ñëw ak xoli jaama nga ñëw wak xoli ambiance nga ñëw ak xoli pour nga gis soo bi successful nga ñëw ak xoli boo xol boo xam ne xol boo xam ne la mooy wane ne lii sa bos la nit ñi suñ la gisee kuñ fa munti gis ñu xam ne ñii dañ ñëw fii ak benn xel yaa ngi understand Gambia dafa ndaw torop waaye dafa xat torop tamit du ko xatal suñ dina yi ñoo xat suñ xëjalante dika bi dina yaatu waaye fii daal yàllaa ko def ñun ñooy pikin we de bring mama jooy yes te bañuñ kenn nag yes ku ñu bañ tamit yan na kama bañ a pare falal sa mbugeel em ak fulal suñ yëf waaw fulal fulal from fulal suñ yëf daaneel stade baa ngee ñëw te daaneel état bi su rek maa ngay teg maintenance maintenance état yaa te Gambia Talents nag billahi walaay talaay ak mi wala media house bu Gambia jërë ngeen jëf ci seen jàppa ak ci seen supporti es cause lii du bees la house yi léegi lañ ñu tan waaye benn tey jërë ngeen jëf leen demee ba xam soo réeree foo dee dellu mooy sa foo jógee waaw waaye fulal suñ jëf bi nag si loolu pingal suñ cër daakande xef root soo ëllëg la pingal suñ cër maa koy teg ah ñii kon suma broda su ootee ah li ma munul sa dama koy jéem wàccee ba zéro da ngeen da ngeen nar dóom Gambia kon wa Gambie ñu indi seeni ànd te xam ne doomi taal du manqué keroog. fan nag surprise xalaatal uyu ma déedéet déedéet ma bëgguma waxtu ku baxal ne ni ne kuy baxal ne ni koopin Sénégal kon yéen ñi ñuy seetaan ngeen ko de one pack ay surprise yu neex la leen préparé kon bu ko kenn mboote bu leen nangu kenn kenn kenn ku leen koy nettali waaye yow ki nga xam ne di Big Faa yow tamit nag lan nga expect ci li nga xam ne di bés bi bés bi expect naa si love expect naa si energy energy bi because man small boy suma do yëpp dañ am energy te ñëpp a pare dañ mel ni dañ xiifal bés bi I mean, gis nga park lu mu war def ëllëg road show bi rek loolu musta you know because loolu dara waralut ko du dut love love buñ buggante you know comme ñu ni neen like jama buñ seeya ba pare ñu xam ne tamit xam nga we are family lii music la jaru lekkante jaru reyante jarut dara ku nekk da ngaa jot sa wërsëg rek so lan moo ñun duñ mun a lovante lan moo duñ mun a taxawalante lan moo duñ mun a jàppalante defalante this is what it is moo gis nga jàppalante boobu noonu mu ngi ñëw génnee impact boo xamante ne fans yi dañoo gën a bég dañoo gën a kontaan because tey ok dara neexut booy ñun ñëpp ñu dugandoor stade kii play kii wàcca kii play kii wàcca kii play kii wàcca and fans yi man xam naa ne moom like ok man ok always gars yi lu ñoo expect mooy ñëw drib varab rek waaw waaye this time tamit dina am yeneen kind of difference yoo xamante ne xamante dinañ ko gis si Big Faa because xam nga liggéey bi tamit moo demee noonu always foog nga asi lu ees xam nga di upgrade update level bi di gën a yokku xam nga you know te ba pare tamit suma ndóo bi one part attaque luo waaye di tefli uche eh, eh, dara by jisul st you know what I mean ñoom ñëppaa ngee ñëw si show bi like upcoming yi doo mu mun a compter you know dañ ko yaatal because dañ ne nañ fulaal suñu yëf you know kon dañoo fulaal ñëpp ñëpp ñoo xamante ne gis nañ si seen boppa rek dañ dañ leen a jox access bi ñu fulaal si seen boppa because you know lots of artists ñu ngi fi si dëkk bi ñu ngi gis seen boppa si show bi ñu ngi ko promote ñu ngi push presenter promoter DJs everybody you know fancy family friends Yo, man show me that the family come show you Gambia because Gambia yëpp a si nekk di jàppa ñëpp a si support you know what I mean kon tamit du guy the expect album be record and everything parana and it's a super dope album ba pare dinañ leen then performal yëpp si stage bi incha allah dinañ Then jox track by track te xam naa ne gars yi nañ ko love because ñu ñëwoon si listening party bi rëccuwuñ ko invite nañ koto yu xam music ñëw déglu and then appreciate nañ ko so dara desu dudu saturday ñu dem ñu maagal bés bi bëggee gars yëpp di leen wax ne ba saturday incha allah ba november 28 feesal stade fulaal suñu yëf mooy loolu jeex na jërë ngeen jëf waaw di leen remind ne ëllëg road show bi three o'clock Sunday la moo nekk three o'clock si Independence Stadium bi foofu la ñoo starté understand nga one pack moo ko perform live si kaw truck bi so if you miss this gisuma la the if you miss this kii mooy loolu man ëllëg dama sol totul ninja suma swag boobu beneen bi totul ninja bi boobu ma dool fo waaye twenty yet bi xaw ma fan laay ñëwee xaw ma ndax fii muy anool bi fu ñu dee damee béykat ma poosee béykat ñu dama ko waaye électorul ni njàng yaa gis. waaw kon mbokk yi ñuy seetaan yéen a woote bi noonu ki nga xam ne moo di One Pac ànd ci ak doomi ndeyam di Big Faa borom bëri bagage ñoom daal ñuy woote seen bés bi nag nekk le 20 novembre fële nga xam ne moo di ci stade Bakau bi nag lii ko dara tardé. yow dootoo ko dabati man man kenn du fa jiitu incha allahu man maa fay jiitu du ma nang kenn ku ma ko nettali. dinañ soxla media houses yi yëpp si road show bi ngeen ñëw road show bi maa leen ko dig doo leen réccu te doo leen am waste seen energy and time you will have the best road show ever and would be one of a kind lu musuta xew Gambia du bari bagage la umba bi nag ëllëg lañ koy uñi kon yene ko degal do amu bi dañ ko nara teki bu ko kenn wute nak man de ma fay jitu kon mbok yi be ondi 20 inshallah मदद di डिम सेतान बादल में सब पेगु कोरोना वायरस सुने के जिला गुलो Get vaccinated aru from getting covid arsa bapu million jama wala le nyim pengo wata coronavirus musasa sotoringolsi andin amala nyimu keleti wala nyimu musuleti amai si bonyoto mo wini jama fata findu banko kan wala leñi sasa soto andin ayi fale coronavirus man jaral soto bari fanan akibar kibar mumunti ay penguo soto le